bismillah mbokku internet yi dal leen ak jàmm lu defu waxu luy ay dik njàmbat kawtef amatina ku dee ca marché ba yaa tagge sa bopp ki ñu tàggee ay defam mooy président Macky Sall ak ay jegeñaaleem da ko ko def di sëriñ Moustapha Sy kilifa gi nee na kilifa ak kàngamu réew mi yépp faatu nañ te li ko waral du lenn lu dul xërëm yi nga xamante moom la Macky Sall di jëfandikoo mhm, doy na waar ma ne la responsable daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty di sëriñ Moustapha Sy ne ki nga xam ne mooy Macky Sall jot na ko am ci réew mi tey lii Serigne Moustapha Sy ak kaddu ya mu yëkkati ca las quotidien mel ni kuy woo doomu sénégalais ci ab ma ngay wax ne kilifa diine yeeg ñaari mandaawu nguurub Macky Sall ci la ñu faatu te seen génn àdduna mel na ni góorub Marème Faye Sall génn ca non non loxo ma nga ca biir ndax bu ñu sukkandikoo ci kaddu Serigne Moustapha Sy du lenn lu dul xërëm yu bon yi nga xamante ne moom la Macky Sall di jëfandikoo te nag Serigne Moustapha Sy yamul foofu am jëfu Macky Sall si ndax xamle na ni ay nag yu ndaw yoo xamante nii amuñu sax juróom benn weer moom la pare ci nguur gi def sacrifice waaw kay sacrifice nañu ay doomi nag yu bari fu ne ci réew mi ngir gagné élection présidentielle yi ñu jógee ah lii bu dee dëgg ma xam ne Macky am na fi temps jàpp sénégalais yi di leen liggéey ak sëriñtu ngir rek ñu votel la daanaa dégg nag nit kuy liggéey moromam waaye nit kuy liggéey am réewam fii la bët yam ba gaawantu jàng rëq-rëq yaak damm-damm ya ñu la deete waay sëriñ Moustapha Sy dal di jox Macky Sall ab euh, mise en garde attention attention ma ngi koy artu responsable moralu daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat mi ngi daan Macky Sall da ngay jëfandikoo xërëm ji doo mujj fu rafet doo mujj fu baax sëriñ Moustapha Sy mi ngi xamle ci ay kàddoom ne bépp bakkan bu way sacrifié du jaar waaw kay man ma yokkal ka ci ne alof njaay neen lu way ren sa loxo lay naj waroon naa la sëriñu Macky Sall bi nekk ndax ma waxtaan ak ñuy soppi doxalin gën a am jom gën a am fulla bëggante soppante wóoluwante te yéenante jàmm jërë ngeen jëf